yalla xirma tamit ci théâtre donc bima ci nekkee ba légui nak musuma ci am dara lu may regretter donc ci la nek di def spectacle sur scène euh, interprété naa ay personnages yu bari la Dior interprété naa Samba Lawbe interprété du Kémor interprété na pas mal de personnages yo xamné ne ni yàlla def na né nek na ci donc bima may ñëw di intégrer si Marodi aussi casting la def bo xamné ni man ngi ko defee woon Kër Pafay muy président des des artistes comédiens du théâtre sénégalais muy ARCOT bima ma fofu casting bi donc yalla suturaal ma jëluñu ma woon ci ci même instant bi mais yalla dafa def Marodi amone benen publicité bu ñu def muy jaba donc biñu def publicité bobu noonu Nafisatu mom momo ma madame sila euh pour wax ma na ñëw def ci casting bi bima ma def ci casting bi yalla dimbali ma bi ma ci guddi gi lañ ma woo ne ma retenir na nga ci ci publicité bi. Euh, ma def publicité bi après ma continué waat nekkaat ci sumay activité comme théâtre laa xam moom laay dund moom laay def ma nekk sumay répétition et tout donc ba benn instant ñu woowaat ma Nafisatu moom moom ma woowaat pour yëgal ma castingu emprise bi donc bi ma woowee tamit brusquement arrêté wu ma dama juub rek ñëw mu ma fekkoon tamit ci chantier yi ndax boobu damay def su ma liggéey ba ay 4 heures ma wàcc dem salle de répétition donc yàlla def na ni wàccagu ma woon bi ma woowee brusquement ndax maa ngi ko doon xaar nag ah mais bi ma woowee brusquement dama arrêté li ma doon def yëpp bi may ñëw Marodi maa ngi ànd ak sama sama taaw bi Moustapha donc bi ma ñëwee fekk naa fa ñu bari ma yëg ci kaw def casting bi comme ni ñu ko war a defee rek donc yàlla suturaal ma bi ma ko defee ba pare euh, sentiroon naa ni même bu fekkente ni duñu ma jël ci ci personnage bi di Django euh, amoon naa yaqin ni dinañ ma woowaat ci leneen. ndax yàlla def na ne bi ma ñëwee defoon naa li ma war a def et que ñoom ñi ma ko doon defloo aussi tamit apprécier nañ donc mu nekkoon loo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla neex na ma donc bi ma ñibbee sama kër tamit yàggul dara dañ ma woo téléphone pour wax ma ni retenir nañ ma ci personnage du Django bi et là biñ ma retenir euh, li ma njëkk a xalaat mooy liggéey ndax xalaatoon naa ni personnage bu bu compliqué la personage bu sensible la personnage la boo xamante ne nii. boo ci duggee mën nga ci mën nga cee mën nga cee dégg lu nekk ndax euh, dañuy dañuy gis ñenn ci sunu ay mag ku ci mel ni sama yaay bi nga xam ne mu ngi ci série bi ci emprise sama sama tante muy maman Ndeye Kumba euh, mu nekk koo xam ne ni des fois da nga koy gis muy interpréter ay personnages yoo xam ne nii da gis ne après nit ñi dañ koy xaw a jéppi dañ koy xaw a bañ mais au fond li tax nit ñi di ko jéppi ñoom ñoo ko xam parce que sénégalais bëggul bëggul nit ku soxor sénégalais bëggul nit ko xamanté ni da fay violent donc buñ ko gissé rek brusquement li ñi jëk xalaat rek mooy dafa bon wala dafa soxor wala quelque chose comme ça dañuy sax dem ba wax né est-ce que réellement sax melul non et or que demeewul noonu ay personnages yo xamné ni dañ koy top rek rien que pour bëgg euh, euh euh dundal li nga xamné ni mom lañuy def donc buñ ma joxé personnage bi aussi tamit euh ma rayanté wat dem jàngiwaat lenen dem dem wuti wat lenen ndax en général bu fekkee ne da ngay tourner euh day baax yaangi tourner mais nga wut koo xam aussi daf lay coacher ci bagage yu bari donc ci loolu lañ nekk téggu ci donc bi personnage bi ñëwé aussi tamit dem nañ lijjanti parce que Django njëkk du man maa ko njëkk a donc amna ñeneen ak ñeneen ñuko jouer donc dem nañ def ay recherches ci personnage bi dem nañ sax def ay recherches en dehors personnage bi ndax amna ño xamné euh, de nature Django lañ tudd donc mu nekk tour bo xamné ni nii na ma au début mais bima démé def ay gëstu xamna ni. Tout Django, rek ça dit quelque chose nit la bo xamné ne dafa bañ ko nit la ne bugul pas croire. nitu nitu principe la donc lolu bokku na ci li personnage bi pour mu pour mu réussir dafa doon xawa malgré nak parfait amul mais def ñu ci personnellement mais Marodi aussi tamit accompagner ci ci ci bu xarañ bi nga xamné ni ñu ngi koy liggéey muy équipe technique bi muy réalisateur bi muy ñi nga xamné ni DA lañu yoré yore muy direction artistique bi donc machallah yalla def ñu jappalé ñu ba ñu réussir ci donc mu nekk loo xamante ni dëkk fa yalla j'ai vraiment aimé amna ci nak ay ay circonstances yu bari yo xamné ni nii dal nañu ci ndax euh, moy lima waxon waxoon au début rek bo défé lo xamné ni nit ñi dañ ci xaw a gis seen bopp day xaw daf leen di naqari forcément bo génné dina am ñu lay xoolee benn bët donc am na ay ay affaire yu ndaw yoo xam ne nii ñam nañ ko ci ndax man daje naa sax ak mag mu woom ma ñëw mu waxtaan ak man après dafa ma répéteel même moo yu mu doon utiliser au moment où mu ngi doon seetaan série bi bon saaga mënuma jaar ci lim jaaroon ndax mag la euh, mais da ngay xool xam ni carrément rek kii lii mu la expliqué nii ça veut dire au moment u nga koy joué am na loo xam ne nii jox nga ko ko ba tax xolam am fu mu toll mu utiliser moo boobu ñu nangul ko ko mais mu nekk tamit nit ku baax mag boobu noonu maa ngi koy ziar géej wàlla dëkk donc yooyu noonu àndil nañu ko beneen bi aussi tamit muy côté euh, yokkute bu waxee dëgg rek am na yokkute bu bare bari bari bari boo xam ne nii defal nañu ko malgré am na ci yeneen yuñ jaar def nañ théâtre dugg nañ ci milieu cinéma dugg nañ ci série ak détails yooyu yëpp da nekk nañ ci mais xëy na euh, yàlla suñu tur pour mu génn ci Marodi la ko jaarale ñuy sant yàlla sant suñu ay waajur mais aussi di sant Marodi ndax nit bu santul nit du sant yàlla suñu borom donc dañ leen koy sante bu baax ndax ginnaaw yàlla si ñoom la ko la ko jaarale donc mu nekk loo xamante ni succès bu ñu xaaroon la ndax boo nekkee ci mbir di ko liggéey euh, di ci joxe sa bakkan di ci di ci joxe sa temps force di nga xaar au retour ni dina am lu lu la servir donc noonu la demee succès bi aussi tamit comme ni muñu féké won rek noonu la ñuy noonu bayé ndax euh, li wax chaque jour rek moy Baye Fall dara dara dara feesul bëtam dara rëyul bëtam dara ibbiwul bëtam niñ ñu daan dundee la ñuy dundee moom la continuer et inshallah allahu rabi ñaan nañ yalla bis buñ fi fiy jógee ñu jógee ci même circonstance yooyu mooy nekk Baye Fall ila abadan le euh, bu dee ci côté différence bi aussi tamit entre Django ak euh, sama propre personnalité muy mort ak Django amna différence bu bu bu mag bu ci nek ndax euh, Django malgré nit bu bu rafet xol la mais parfois day agir wala mu réagir réaction bo xamné ni da ngay sentir ni ki ni dafa soxor wala dafa bon wala quelque chose comme ça mais bo xolé intérieur amna lo xamné ni xeyna peut-être moo fa nekk loo xam ne koy gaañ ba koy pousser à ce que buy bëgg juk pour gaañ bu ko tay mais c'est différent ak moor bi nga xamante nii moom déjà su gisee lu lu xonq sax day jàpp ne deret la day taf génn day taf bëtam donc am na différence bu mag kii dafay soxor dafay dóor dafay gaañe et hésité wul sax pour pour pour pour pour def lu mu lu mu sentir donc moor c'est autre chose beneen bagage la Baay Faal la nit bu dal la lenn rek laa xamante nii xëy na xaw nañ ko nduróo muy muy protecteur ci côté boobu ndax man bugguma gis kuy néewal nit doole xëy na kii ci beneen façon la ko defee mooy dafay protéger koo xam ne nii du ko bëgg mais man ci vie naturelle bugguma gis nit nit buy néewal nit doole et su ma wóoree ni yow ki ngay néewal doole yow mi koy néewal doole man mii maa la ëpp doole du ma hésiter pour néewal la doole parce que man noonu laa noonu laa mel bëgguma nit boo xam ni manam day day néewal nit doole et je vois que Django aussi tamit mi ngi def tout pour protéger koo xamante ni yàlla dafa am lu mu ko boole ak moom muy mbëggeel donc amul amul amul amul amul amul voilà amul dara loo xamante ni nduróo na ko ak moom à part loolu euh, benen bi aussi tamit mi côté impact bi am ci entre saison 1 bi ak saison 2 bi là je vois que saison 2 bi mi ngi yegg bu baax a baax a baax a euh, donte nak euh, nit da ngay wax rek euh, saison une bi amna lu bari luma ci ci côté jeu ci côté euh, et tout donc mu wax fa dama ko impact saison une bi Django il était fort ndax amul dara pour pour pour ko pour ko def donc diriger en fait donc mais bi démé ba ci deuxième saison bi wala boog ci fin première saison bi sentir nañ né euh, euh amna touti faiblesse bu nekkoon ci mom donc lolu day top day fekk ci wat suma djumul ci deuxième saison bi ndax première saison bi doole bi mu amoon xadar bi mu fit bi mu amoon ak doole bi toppoon ci ginnaawam yépp peut-être mën nañu wax perte ko donc deuxième saison bi day xawa metti ci mom day faible donc pour me relancer wat il faut mu liggéeyaat liggéey bu metti liggéey bu bu bu dëgër pour mu mën récupérer place bi nga xamné ni personne na ndax dafa am fu mu jugee am fu mu ñëw te pour mu dellu fi mu jugee woon il faut mu liggéey liggéey bu métti pour mën a wat fofu non donc impact bobu la fi ni dafa xaw a kawe mais je vois que ci deuxième saison bi dina xaw a ci mom tuuti ndax dafay faible pour bëgg a pour fekk dina mu personne donc ça va être un peu compliqué pour Django.